décret du duñ ko du du fon du du demee noonu bu jógee ci président dafay dellu si waat dafay dafay dellu si waat secrétaire général du gouvernement pour ñu numéroter ko dater ko publier ko au journal officiel parce que imprimerie nationale bi fi ñu fi ñuy imprimer journal officiel mu ngi dépendre ci euh, secrétaire général du gouvernement alors euh, monsieur le premier ministre président de la république euh, Wade bi mu seetee euh, Macky jox na ko ay recommandations ci mbirum pétrole alors tey fii mbir yi nar a mujjee est-ce que coowal pétrole yi finalement duñ ko mujjee suul. non coowal pétrole kenn mënu ko suul xam nga coowal pétrole moom dëgg dina jib ak situation. bi nga xamante ni moom la ñu gis. ala kulli aal muy tey wala muy ëllëg coowal pétrole moom kenn du ko mën a suul. ci naka. Euh, gis nga décret yi documents yi estampillé secret secret défense tant que yéen a ngi au pouvoir. secret la doon mais bu ngeen fa jógee mais gars dañu lëñbët lépp dara dootu nekk di secret donc euh, le pouvoir euh, le pouvoir là exécutif n'est éternel ñi koy incarné tey dana am époque boo xam ne dootuñ fa nekkati. mais su fekkente ni su fekkente ni amoon lu ñu mën a nëbb tey. d'accord ba mën koo nëbb abadan. mais su fekkee ci lu mais su fekkee nañu ni famille libérale la ñu bëgg ñu régner pendant cinquante ans mais mën nañu xaar ñu. nëpp ah, nëppal affaire yooyu ba xam ne duñ ci xam leen loolu moom mënut a am nëpp nëppal moom du am ndax man mii di wax ak yow. billahi dëgg laa ànd ak président Macky Sall du nag moom ci ay tappale ak ay leneen te xam naa ne moom it bëgg na bàyyi fi wuy bu rafet parce que xam naa ne waaw. je que mën nañu. Euh, euh, yaakaar naa ni euh, lépp li ñuy def nii daal dana dana leer. Mhm. waaw kon Macky Sall intérêt tey jii mooy mu am lu leer naan ci mbirum pétrole bi. Ah te oui naa noonu lay doxalee. parce que ci ci ci nguuram lañ ko taqalee. ma ne. Euh, ci nguuram la ay nit di waxee. di pas taxal ko moom taxul dara. Ah, takkal nañ ko ah. taxal nañ rakkam. non non non. ah loolu li nit ñi di wax daal président séddale na pétrole bi. mais séddale ah. pétrole bi boobu dañuy wax rek. pétrole bi bu ñu exploité ko nu ñu koy séddalee. waaw mais ci ay contrat ak ay par kenn du ko lekk. ay par. <laughs> ma ne nañ xaar rek ñu nañ ñaan yàlla rek fekkee ko nañ ñaan yàlla fekkee rek bu ñuy exploité pétrole bi ak. ngëneel li mu indil eh, réew mi. loolu la ñu leen yàlla tey bu ñuy wax génération future yi moo tax. ñuy wax parce que ku wax pétrole xam ne euh, liggéey bi gaawul noonu bu ñuy wax génération future. moo tax am pétrole yëpp dafa am part bu ñu réservé aux générations futures. tout à ñu nit tout à bu ñu commencé exploiter pétrole bi. am na ci yoo xam ne génération yi koy fekkee ñoo koy dund ñoo koy ñoo ci jëriñoo mais am na ci loo xam ne pour les générations futures. mais bu fekkente ne séddale bi jaarul yoon nag. voilà ku yàlla séddale bi dina jaar yoon.